Monsieur le ministre, il y a une banlieue très proche ici qui s'appelle Pikine. boo doxee tuuti tu entres à ginnaaw raay euh, ku nekk xam na ni 2012 bi la président Abdoulaye wadd di ñibbi Karim Wade am na lu mu fi bàyyi ci wàllu infrastructure pavage ba fa nekkoon noonu la ko roñee yóbbu ko eggale woon ko teg pavage bi dafa waroon dugg biir ginnaaw raay monsieur ministre comme ni ñu la xamee euh, wax dëgg yàlla euh, ñu bëggoon rek ginnaaw raay aussi soriwul mi ngi nii entrée bi mooy entrée poste Thiaroye Thiaroye hôpitalu camp bi loolu matul sax 2 kilomètres te kenn du ko defar dañ leen a fàtte nous vivons dans la totalité de de de de noir nous vivons amuñu tali amuñu yoon amuñu dara loolu nag <clears throat> dinaa ci jaara rek wax ni am na ku ko xam lool di ku baax. te monsieur le ministre nag am nga collaborateur bu baax muy le ministre Abdou Ndene Sall monsieur le ministre ministre kat mën naa jékki-jékki ndekete toog ci ginnaaw donc nañu koy nañu koy bàyyi xel di jàppale ñépp coow bi mu amee ginnaaw raay ci teer bi lu ngeen tabax ñu toj je apple mu bàyyi li muy def yépp ñëw dalal xale yi ba xale yi dal donc loolu boo toogee dinaa la ko wax ndax nit ku baax la di wax ni euh, kooku ñuy wax met Moussa Diop moom it na gën a góorlu kaar yi amul diggante Pikine ak Kër Masaar na yokk kaar yi ndax moom fu mu toog rek nee na moom dàq liggéey ci àdduna donc na gën a góorgóorlu ci li muy def parce que nit boo koy jugé da nga koy xam moom xam na li may wax deful dara dégg waaw monsieur le sama doléance xam naa ni jël nga ko en compte mais comme sama askan dañu may seetaan. te sa xarit bii nga dendal di la ministre daaw de Diallo moo ko jëloon en considération ci budget te defaru ko euh, léegi ma buggoon diggante Dakar ngooñ ak Njonge wala diggante Taaleen Gay ak PAM sama dëkk sorentewul monsieur le ministre ñun tamit foofu ci Sénégal lañ bokk man mi gis nga ma femme laa sant dëkk ba PAM la tudd monsieur le ministre trois tronçon wu 3 la comme ni nga ko waxee nu aussi nu devons rentrer dans l'histoire nous ne sommes pas là pour toog rek jàpp suñu njàmbur monsieur le ministre fekk ngeen fi ay infrastructure yéen a ngi ciy liggéey monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo en a fait autant et vous vous procédez de la même manière qu'au ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui avait procédé de la même manière que le grand ministre Karim Wade moi je pense que yaa ngi liggéey ñu ngi lay ñaanal yàlla ndax wax dëgg yàlla suñu xamante du tey yàgg na te xam nga li may wax mais nag maa ngi bëgg tamit profiter ci occasion bi di la wax ni monsieur le ministre le coût du transport est très élevé ci TER bi na ko revoir parce que wax fa dëgg yàlla Pikine Tëngéej 3000 francs kenn du la ko jëlal yokki oto rek nga fiy def ci tali bi wàññil di la wax ni aussi le BRT nekkul pour pour ñun pour waa Géejawaay la donc je pense que damay revenir ci Maître Moussa Diop wax ko na gën a góor góorgóorlu dugal ay car yu gën a bëri dans la banlieue parce que c'est très important tey bu ñuy xool banlieue proche bi nga xamante ne moom lañ am muy Pikine moo gën a forger Dakar parce que tout ce qui était à Dakar te seen kër yi gën a cher affité bi cher euh, luwaas bi cher ñooñu dañoo randu siwaat ñëw diggante pikin ba Kër Massar et vous avez fait de très grandes villes nit ñi comme li Ablaye Wade waxoon rek euh, Sénégal dañu mun a tabax ay kër yu rafet te léegi ñu ngi koy tabax ci booru Tëngéej ak yooyu donc ngeen yokkaat encore une nouvelle fois les cars de transport dem Dakar dem dikk ou Sénégal dem dikk comme vous voulez euh, maa ngi lay sant di la di la gërëm di la wax ni wax dëgg yàlla euh, loolu am na solo. pavage bi daal bu ñu sañoon mu dëkk si euh, biir ginnaaw raay euh, ñu waxaat la rek ni la dakaar du moom rek mooy dëkk jàllal ci biir réew mi liggéey parce que loolu moo tax ñu teg la fi ñu la fa teg